ñi ngi euh, dugg si euh, fekk fii it euh, ñoo xamante ni ay nit lañu yoo xamante ni ay kilifa lañu mu mel ni njaboru sëñ Daaru Asan la séen mu am kenn ku ñu toogal rek fii ci kilifa yi xam naa dañu koy laaj turam ak santam asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam Njaay. waaw ñu di ànd ak ñu di leen siyaare bu baax bëggoon leen laaj rek yéen ñi nga xamante ne nekk ci bunt bi. ngir di mën a ànd ak maanaam kilifa yi di xam fi nga xamante ne maanaam fa la ñu toll nan ngeen gisee gum wàllu organisation bi ak kilifa yi nga xamante ni ñoo dikkagum. waaw organisation lépp jaar na yoon ndax sëñ Bass Abdou Khadre ni mu ko waxee noonu mu ko sëñ bi teg ci loxoom. ni mu waxee woon dane bu bu ñëwee kilifa yi nañ leen yóbbu dalal leen bu ñu dalalee ñoom ñëpp ba noppi bu sëñ bi ñëwee ñu door leen a jël indi ñu ngi tàmbalee ñëw waa kër ñu takkoo takku ñëw nañ ci. waa délégation sëñ Abdou Latif Diène ñëw na. ba ci suñ mbokk yeneen tariixa yi sax waa cene ba ak seen ñoom ñu ci biir. waaw fi mu ne dëgg yàlla tubaarkaala ñu ngi séentu tey ñaan euh, suñ bi ñëw ñu jëfe ko waaw incha allah. mu mel ni euh, sëñ jiiri tey nga gis maanaam nii mbooloo mi takkoo. ak ni nga xamante ne tey yoonu murit ni la ñu teewee mu mel ni ministre du guléet ci woote bu mel nii ñu koy def ci yoonu murid waaw mbooloo moom day gën ndax sëñ bi waxtu <laughs> Tuubaa moom amul tànk gannaaw tànk kanam rek sëñ bi moom bu ne ñëw leen moom sax ci yéeme boo xëyee da nga fekk fees dell ndigal rek lañuy ñuy déglu ndigal rek la ñuy xaar waaw waxtu wuñu déggee ndigal rek jóg da gannaaw sëñ bi dafa woote te woote bi jàpp nañ ne eh, wooteegul woote bi mel nii dana ñëw ngir déglu ko ak ndigal yi muy joxe ñu fas yéene ko jëfee waaw jërëjëf sëñ Abdou ah. Khadre ñu lay sant bu ah, baax jërëjëf jërëjëf di la gërëm ci euh, liggéey bu am solo bu mel nii yéen a ngi ci bunt bi day mel nii kon mënees naa wax ne kilifa yi ñu bari tàmbali nañoo dikk ndax day mel nii bi ñu tàmbalee ñëw mi ngi bëgg amub diir dëgg la dëgg waaw ñu bari tàmbali nañoo ñëw am na ñoo xam ne sax euh, ñëw nañ euh, fukki waxtu ak ñaar lañ ñëw waa am na bari ñoo xam ne fukki waxtu ak ñaar lañ lañ ñëw ndax quatre heures sax lañ waxoon jëm kaw waaye am na ñoo xam ne buñ déggee xër ci ndigal waxtu woo leen wax lu jiir loolu dañuy ñëw waaw am na ñoo ñu bari bari ñëw nañ